vraiment ni ngoor yi. mais kontaan mais bien sûr bu baax baa ngi nii. xam nga surprise la ñu wax. baaxkat bu mag bi l'international baa ngi nii. wala ndax nga déglee. arrêté taxawaay ju leen taxaw ay deux heures la ñu wax. tey damay tànn vous et nous yaay sama chéri waaye tey dama fi am yenn ñett. ah ah ah ah loolu lii dafa fort nii ma yow ko jàpp mais ambiance bi tamit yaa ngi boobu Sénégal de. sa kanam laa namm nag mais dama kontaan ba dafa am ñoo xam ne da nga dajeeg ñoom ñu def liggéey bu am solo waa xamadina. ndax def nañ suñu test ba pare suñu résultat génn bu yàgg dara waa mbaa yaa ngi ci jàmm. nga ma waa gis nga mais di li mu li mu way ëpp na macha allah. yal na la yàlla jàppale. tey nag boo gisee ma ñëw. xam nga euh, entre temps dafa nekk émission boo xam ne ñëpp a koy seetaan. la rawatina la jeunesse. sama gars yi maa ngi leen di nuyu di nuyu euh, ñi nga xamante ni tey tamit euh, ñoo fi nekk. Ah, gato bi maa la ko indil tey. Ah. Ah, waaw waaw daa ñëw gato baa ngi noonu. mais mais mais mais mais mais ah du ma ci yem nag. mais nda bul ma def nii waay. nii de laa lay def. waaye nag ci ma doon bàq jar na ko. xam nga ñun sénégalais dañoo xam teraanga. barke Serigne Saliou Mbacké ci la wax te dañoo mën a du <laughs> la leen la la sax xam naa ci kanam rek boo doon làqatoo ñu daal di koy <laughs> daal di koy joxe waaye dafa mel lu ma indi parce que xam nekk groupe mm. te dañuy bëgg di joxe information information yu leer naññ dama bëgg xale yi li nag mooy lii quotidien dama jóge léegi réunion euh, de rédaction mhm. ñu daal di génne lii gis ngeen ko yàgg na fi sax mais dama bëgg nag ngeen xam ni journaux mhm. dafa am solo ci dëkk mhm. parce que dañoo war a joxe information yu leer képp koo xamante nag bëgg nga